bànneex boo waree benn njëriñ amoo ko jàppal taal buuxal mu sës. damay dara rek damay affaire buuxal mu sës. fii mooy fii mooy VIP. buuxal mu sës. nga kër laa gis. buuxal mu sës. kër laa gis du gërëm bu mais bànneex yow. yow ni nga ni nga ni da nga te salon bu cent mille nga rete salon bu cent mille nga rete.

ah amee ñu doon ci ginnaaw jóge ju bari nga xam ni <laughs> moom it muy nit ku baax mbokkum day yaa awa dundal yàggal wéral xam nga taamu maa wax ci micro. waaw wax dëgg yàlla dama leen di présenté sama rakk boo xam ne talent rek la am te bis ni ki tey dama bëgg soirée Sidi ngay ñëw que Serigne Touba daa mën li muy a fecc a way mën a nga xam ne tey moo tax ñeew ma kenn moo tax ñeew ma kenn moo tax léegi ma moo tax léegi niveau yéeg parce que partout dans le monde jaar naa fa barke Serigne Touba fu ne dem naa Allemagne dem naa Suisse dem naa euh, Italie ah dem naa vraiment ah ba Sénégal léegi ay xeer la may def ma dem cinéma cinéma dama ko doon dégg cinéma bi naan ñu si maanaam Sidi nañ noppi nañ seetaan ñu. boobu Sidi dañoo yërëm kat seddaay bi la doon daw rek ñu toog damaa bëgg nga bànq. dëgg la loolu ki ñaan mënu ko ak fi weer mi toll mu yor soutien def nekk soutien de famille uuf ñu bëri uufuma man kese kon nag kaka def kaka wax la bëgg bëgg ko sax nag mais ka def lu baax danga koy wax ndax sénégalais ñenn ñi xamuñu te bu ñu xamul ñu xamal leen ndax ñun lu ñu boole Sidy du hasard c'est la famille ñun cinq étoiles barki Serigne Touba bëkk ak peel la ah nañu wax waa Sénégal man yaqaar